ni ma leen ko waxe woon tey di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre ñuy fàttaliku lu xewoon bokk ci taarixu politique bu Sénégal xam ngeen di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre atum 1962 la euh, coow lu rëy juddu woon ci diggante président Léopold Sédar Senghor bi fi nekkoon ak euh, ki nga xam ne moo nekkoon euh, président Mamadou Dia ak ñeent ci ay jëwriñam la ca xewoon bari na ba ki nga xam ne sax moom mooy président Mamadou Dia mujjee woon na ca tëdd kaso lu yàgg ko joxoñoon baaraam tuuma ne dafa bëggoon a amal coup d'état maanaam jaar ci suuf euh, fukkati nguur gi euh, ci loxoy président Senghor ba ñu sax daal koy tëj ngir dundam euh, ñu dellu siwaat ci yenn ci xët ci sunu taarixu réew aju ci wàllum politique Mame Birame Diouf lañ ci àndal fukk fan ak juróom-ñaar weer décembre gi ñuy fàttaliku kon nga xam ne ni crise politique gu doxal ci Sénégal ci atum 1962 jëm ci coow ki nga xam mooy Mamadou Dia doonoon président conseil du Sénégal moom mi nga xam sax instituteur la woon waaye doonoon sénateur ak député ci assemblée nationale bu française vice président it bu conseil gouvernement bu loi 4 coow loolee nga kon amoon na ci fukk fan ak juróom-ñaar weer décembre atum 1962 lépp rek jëmoon kon ci ab ni moom kon Mamadou Dia ci benn yoon ngir ñu destituer ko ndax kat joxe woon na xalaatam ci ni réew mi doon doxee ak yenn ci ay mbir yoo xam ni joxoon nañ ko yenn ci ay kilifa moom Mamadou Dia nag gannaaw ba mu jugee kon dem ca assemblée ak yenn ci ay ndogal yoo xam ni jëloon na ko ñu gis ne loole kon kon moom warul am sañ-sañ sax def ko noonee kon lañ ko teg loxo moom Mamadou Dia waaye te mu ànd ak yeneen ministres yoo xam ni it teg nañ leen loxo bokk na ci ka nga xam ni mooy Valdiodio Ndiaye doon ministre des finances Ibrahima Sarr ministre du développement Joseph Mbaye ministre des transports ak nga xam ni mooy Alioune Tall ministre délégué à la présidence du conseil chargé de l'information fàttali nit demoon nañ ci haute cour de justice bu Sénégal li ko dalee juróom-ñetti fan ba fukk fan ak ñett ci weeru mai atum 1963 ñaar laaj ko ñëw mooy ndax moom Mamadou Dia amoon na sañ-sañ ne nga xam ne ni joxoon na ko nguur gi mu am sañ-sañ ba tëb kon dem ci assemblée ba ak lépp loo xam ni coow la ca doxoon la procureur ba nag ba muy sëgg ci mbir mi bañ ci génnee moom Mamadou Dia kon ñu ne dañu koy gratuité waaye it yeneen daan yu ñu teg ci ñeent ministre yooyee Valdiodio Ndiaye Ibrahima Sarr Joseph Mbaye ñu condamné leen ñaar fukk atu kaso Alioune Tall moom it juróomi atu kaso yóbbu leen ca centre spécial détention bu Kédougou loolee des kon ci taarixu Sénégal ba tey am ñu ci gis ñagas ñagas bu metti lool ndax kat yenn ci ay accusation coup d'état tegoon nañ ko ci loddam ba Mamadou Dia fàttali ne sax ci kon atum 2019 moom président Macky Sall jël rek turu kon Mamadou Dia jox ko building administratif mu ne nag bëgg na màggal kii nga xam ni kat jot na liggéeyal réewam te fësal lool dëggoom ak lépp loo xam ne rek taxawaay gu am solo la président Macky Sall xam lu ni mel waaye di bàyyi rek moom Mamadou Dia génération bi nga xam ni it ñoo fi nekk ak ñiy ñëw ñu war a kon def modèle ka nga xam mooy Mamadou Dia ci liggéeyam ak rigueur ka nga xam ni amaloon na ko lépp ngir siggil Sénégal. Mame Birame jërëjëf daan ci dellu siwaat ni mu gën a yaatoo ak sunu gan ci ñaareelu pàcc bi di professeur Omar géey nekk euh, historien euh, léegi léegi dañuy dem fekki Chérif Dia ci li ci yéenekaay yi.